Euh, dugal nañu li nga xam ne nag moo di ay plainte mais jusqu'à présent daanaka amagul benn réaction bu ci am est-ce jii euh, ki nga xam nag moo di le ministre euh, de l'intérieur dafa fayir ci mission am. non déggoo lu ma la wax ma ne la ñoom bi ñuy yow mhm. dafa am lu ñu jaay nit ñi. Mhm. dafa am ñun lu ñu tàmmoon Sénégal ñoom ñu jaay nit ñi lu utee ak loolu ñun dañoo tànnoon tàmmoon benn mbir mbir mi mooy un état vraiment policier. Mhm. un état boo xamante ne dafay rëq ndigg ñi nga xamante ne peut-être dañuy wax li ñu gëm wala dañuy wax li ñu xalaat mhm. wala dañuy wax seen gis-gis wala ce genre de chose wala ñi nga xamante ne jàpp nañu kat mhm. dañuy exercer li nga xamante ne démocratiquement moom la ñu moom la ñu am mhm. ñu nañu ñun bu ñu ñëwee même sax dañuy génne benn loi pour les lanceurs d'alerte dañuy vraiment bàyyi état de droit euh, justice bi du laale dara ak li nga xamante ne moom moo di moom moo di Euh, président de la république. Mhm. Euh, bu ñu ñëwee rupture. dafay am par rapport ak lépp li nga xamante ne. Mhm. moom mooy gestion de l'État ak gestion du pays affaire yooyu noonu. Mhm. kon dafay am ba ñu ñëw sax tànn benn ministre de l'intérieur bi nga xamante ne bokkut ñoom ci seen parti. tànn benn procureur wala ministre de la justice bi nga xamante ne bokkut ci seen parti. muy acte de rupture yoo xamante ne ñu ngi koy teg ba pare di ko assumer. léegi nag loolu. dafay am peut-être mu am retour de du médaille xaw ma nu ñu koy waxee. Mm-hmm. parce que xamala moo tax parfois nga jàkkaarloog ay responsables. Mm-hmm. quand en face à des responsables ces axes de rupture. Mm-hmm. mën nañu vraiment am njariñ parce que c'est des gens qui vont accompagner ça. parce que bu ma ñëwee yow ma am benn état bi nga xamante ne ñu ngi marqué rupture. ñun dañu leen ci accompagner. presse bi kat defaraat seen toogaay ne vraiment ah. comme ñii de léegi ñëw nañu ne rupture am na léegi ñun war nañu xoolaat peut-être. nu ñuy euh, traité ay angle yu ñuy traité mbir yi. nu ñuy defaree suñuy yëf. wala yenn kàddu yi nga xamante ne dañu koy utiliser. quand on traite l'actualité. politiciens yi tamit jël ne kon léegi. Euh, ñii dañoo woote rupture. mbir mi léegi waxum programme lay doon. Euh, di ñuy wax amatul dugg ci yëfu nit amatul dugg ci vie privée doomu aadama. amatul dugg privé ci amatul saaga amatul nangam wax waxi programme la. peuple bi tamit jël. ne comme léegi rupture am na léegi man normalement su ma amee lu ma dara dal. Mhm. dootu moo ko fajal sama bopp damay dem euh, vraiment vers ñi nga xamante ne ñoom ñooy policier ñoom ñooy yore justice parce que bu ma fa demee mën naa am gain de cause. Mhm. normalement mais nag yooyu boo ko tegee xam nga ci lan lay am njëriñ. Mhm. ci ay nit yu responsable. absolument saawaay nit yu responsable. boo leen ko defee day day normal dëkk bu normal lay doon mais bu dee. ay nit walla ñenn nit ñu irresponsable uh-huh. ne lii ngeen wax kat du fi amee xam nga nooy def uh-huh. jëlaat yat wi yaa ngi may dégg bu baax jëlaat yat wi duma leen ba ñu xoolee benn bët mooy garsa garsa bi ñuy wax xam nga garsa garsa bi sax ñoom la uh-huh. waa Pastef ñoom seen garsa garsa la mais état du garsa garsa état dafay teg nit ñi ci yoon yaa ngi may dégg parce am na yoo xamante ne man Vito Gueye su ma ko defee yoon dal sama kaw Barthélemy Dias bu ko defee dara du ko ci fekk. Mhm. man Vito Gueye su ma ko defee yoon dal sama kaw Ousmane Sonko bu ko defee dara du ko ci fekk. Mhm. état bi nag li muy def mooy ñi nga xamante ne. Mhm. dañoo ñëw ne acte de rupture yi ngeen teg vraiment ñun duñu ko accompagner. te dinañu fexe lépp ba naxasal ko ñooñu ngay jàmmaarloog moom mu rëq seen digg ba ñu xoolee benn bët te nag bu ci bañ. ñu ne da ngay far. wala faruloo uh-huh. dangaa faral ñi wala dangaa bëgg noot ñi uh-huh. saa waay lenn rek mooy am rupture boobu ñi nga xamante ne nee nañu du ñu ko accompagner uh-huh. saa waay rëq seen ndigg duma leen ba ñu xoolee benn bët ne régler toog seen place ni ko gars yi doon waxee l'état l'état restera fort l'état reste fort parce que on doit pas avoir benn nit mu doon ñebbe ci cin nekk ci biir réew mi moom lu ko neex def lu ko neex wax il paraît que instant bi dana commencé gis faiblesse su état bi parce acte yi nga xam ne am na fi yëpp attaques yeeg leneen ak leneen jusqu'à présent gisaguñu benn sanction bu fi am mu mel ni état bi dafa xaw faible ci mbir mi. déggoo lu ma la wax du faiblesse de rupture la woote. mais rupture cela ne veut pas dire que ni carrément da ngay bàyyi nit ki di attaque caravane jàmbur. di génne ay nag loolu laa la wax ma ne rupture boobu ñi ko bëgg a naxasal. Mhm. ñi ko bëggut a assumer ñooñu ngay rëq waaw moo tax ma wax la déggoo moo tax ma ni la uh-huh. bu fekkee danoo bëgg rëq seen ndigg mais jusqu'à présent amagul benn sanction bu am cela uh-huh. prouve que ni carrément état bi dafa nekk en position faible moo xam nga sanction bu am uh-huh. c'est à voir parce que bu ñu ñëw ne diw am na walla nangam attaqué nañu ko ñu ne dañuy ubbi enquête dañuy xool balaa ñuy jël benn décision dañuy def sunu enquête ba mu sotti ñu vraiment mën a interpeller ñu ñuy interpeller mën a jàpp ñu ñuy jàpp. xam nga loolu c'est une def na huit mois ci ginnaaw si c'est neuf mois ci ginnaaw. saa xam nga sax lan moo gën a doon rupture. convoi wu Macky Sall. kan moo ko ñeme woon attaque waxuma la convoi wu Macky Sall sax. convoi wu candidat wu Macky Sall. kan moo ko ñeme woon attaque y en a ci biir Sénégal. bu ñu demee sax ba ñu ne convoi wu ka nga xamante ne moom mooy candidat wu parti bi nga xamante ne ñoom ñoo yor nguur gi. Mhm. ñu ngi koy attaqué loolu rek rupture la. nekk aussi le premier ministre. Ah, déggoo ma ne loolu rek rupture la. Mhm. convoi wu premier ministre ku ko dem ba koy attaqué. Mhm. loolu rek rupture la léegi nag ñoom dañoo ñëw indi ne rupture la ñuy indi. le président Bassirou Diomaye Faye apesanteur loolu ñu ne ñoom rupture la ñuy indi. président ba nekk au-dessus de la mêlée. ne moom sénégalais yëpp la boole jiite loolu ñu koy rafetlu mais nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne rupture boobu ñun duñ ci bokk saawaay rëq seen digg rek ba ñu xoolee benn bët par force dinañu dugg ci rang yi wala ñu génn réew mi xool lu ñu defee. loolu mooy liggéeyu état bi fa mu toll nii. en tout cas moom c'est ministre de l'intérieur. pour que l'état soit fort. wala pour que l'état xaw ma parce que ñoom ñoom l'état a failli man duma leen fekk ci loolu. Mhm. ñoom c'est des militants qui parlent. c'est un parti politique qui parle. Mhm. ils ont vraiment leur propre langage. par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen attaqué. Mhm. te ñoom tamit ñoom ñoo xam lan la ñu subir ba nga xamante ne mën nañu am benn jargon wala champ sématique bi nga xamante ne moom la ñu utiliser seen mhm. communication. mais li am importance mooy le ministre de l'intérieur. fu mu toll nii il est temps vraiment que euh, rupture bi ngeen woote ñi nga xam ne nee nañu duñ ci bokk. ngeen rëq seen dikk. très important jàmmaarloog ñoom. Mhm. wan leen ne rupture boobu dafay am par mhm. mais nag rupture saa signifie pas que on est euh, on dans la jungle. Mhm. ba lu neex waay def ba lu neex waay wax. la loi ba ba nga xamante ne koo koo nar a jàpp sax. mu ne noonoo kon ñii dañ ma contre wala ñii damay xeex ak ñoom wala nàngam nit bu defee lu mu war sa def. saa waay ak kum ko munti def bu ko defee dañ ko war a jàpp teg ko ci yoon. mais ça veut pas que ne man suñu ma jàppee ma ne non non wala faruma ñoom moo tax wala kii ba tax yooyu du ngeen ci dem. noonoo il faut aller vers ça. Mm-hmm. parce que xam moo tax sénégalais yi dañoo jël Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay mm-hmm. wala Bassirou Diomaye fay jox ko li nga xamante ne moom moo di réew mi. Mm-hmm. Bassirou buy rendre compte amul kenn. ku muy rendre compte man ba je pense. amul kenn ku muy rendre compte ku dul le peuple sénégalais. sénégalais yi lay rendre compte sénégalais yi lay waxal te sénégalais yi kat fu mu toll nii ñoom ñoo bëggoon rupture waaye sénégalais yi tamit ñoo bëgg vraiment réew mu tegu ci yoon sénégalais yi ñoo bëgg réew moo xamante ne. nit balaa ngay wax di nga xam li ngay wax sénégalais yi ñoo bëgg réew moo xamante ne nit du toog ci télé. di saaga jàmbur nit du toog ci télé di sosal jàmbur. nit du toog ci télé juste parce que yow da nga bañ nit ki juste parce que yow nit ki neexu la. nga koy wax lu la neex. sénégalais bëggatuñu réew mu mel noonu te réew mu ñu nekk nii nag looloo fi ne xaas ne xuus. léegi bu dee réew mi loolu nee na fi xaas te sénégalais yi ne la saawaay jëlal ñu décision assainirul ñu réew mi. Mhm. il est temps vraiment qu'on assainisse ce pays. ah vraiment. lii moom c'est c'est trop alors Vito dinañ ñëw fii ci fii fii ci Ndakaaru. ndax euh, Ousmane Sonko naka tey jii euh, caravane am mi koy dooree fii ci euh, rond point école normale pour rek dugg ci côté bi nga xam ne moo di côté Baobab comme ni naka démb waaye tamit ci ay xibaar ñu ngi xamal ni meeting de culture bi nga xam ni prévoir na ko fële ca géej waaye stade Amadou Barry boo moytuwul naka suba lay doon foofule ca biir ci biir stade ba tey mais tey jii biir Ndakaaru ñu si bëri jàpp na ni ah, moom day dellu bi ñoo na kon finalement. waaw bon on on on passe bien. mais discours bi ñëw ci discours ba tey. discours Ousmane Sonko bi. waaw ah. donc donc nga ñëw si. discours bi avant avant may ñëw Ndakaaru fii. yaa a deux discours. Mhm. xam nga démb Ousmane Sonko. Mhm. man am na ñu bëri ñu naan Ousmane dafa mer. Mhm. Ousmane Ousmane dafa nàngam Ousmane Ousmane il était Ousmane il lucide. ba muy wax merul jinne wokku ko. yaa ngi may dégg. wax na sax ba mu jeex màccul paste. <laughs> sëqatul. kon nga xam ne kii la mu doon wax. ñor na ko ñor na ko. Mhm. te li ci graaw mhm. Ousmane mu ngi soog a tudd turu Barthélemy Diaz. man loolu ma si xaw jaaxal nag. démb. Mhm. Ousmane mu ngi soog a tudd le nom de Barthélemy Diaz. hier. beneen mbir <laughs> mais mais mais allez-y continuez euh, dinaa ñëw léegi si réaction Waly Diouf Waly Diouf Bodian. waaw Waly maa ngi doon gis kii mi. teg sam <laughs> beneen mbir <laughs> Ousmane wax ba wax tudd beneen jàll. tudd peut-être ki nga xamante ne moo di euh, wéyjuru Bart. Mm-hmm. Barthélemy mais lan moo waral loolu. Mm-hmm. pourquoi subitement Ousmane Sonko mi nga xamante ne dafa meloon ni ku gedd Bart. Mm-hmm. mën a tudd Barth ce qui s'est passé mooy Ousmane peut-être fi mu teg moom ñi nga xamante ne moom lay àndal ñoom lay àndal. Mhm. campagne bi yëpp benn yoon peut-être la def allusion à Barth. Mhm. mais démb il l'a cité nommément. Mhm. jaar fi mu nekk wax ba wax mairie Dakar. wax ba wax digganteem ak Barth wax ba wax yooyu yëpp lan moo tax. li nga xamante ne def nañu ko euh, ndaw yi nekk foofu foofule ci Saint-Louis. Mhm. parce que am na benn moment bu ñu demee affaire nekkatul nekkatul politique. Mhm. affaire yi nekkatul xam nga affaire yi lan la man je pense que affaire yi leneen la. wala en boo xamante ne nit ñi am nañu ko mën koo dugg démb nag Ousmane wax na ne wone na ne man. Mhm. ñi may àndalkat ñoo ma gënal lépp. ak fu ñu munti nekk que ñu nekk Ndar que ñu nekk Saint-Louis que ñu nekk Mbacké que ñu nekk Touba que ñu nekk Bignona bu ñu leen defee lu leen métti man je réagir mm-hmm. parce que kat moom mooy seen kilifa patriotes yi nga xamante ne bokk nañu parti Pastef mm-hmm. ñu nekk fii ci Sénégal wala ci diaspora wala fu patriote mënti yeewoo Ousmane Sonko mooy sa kilifa mm-hmm. yow imagineel alaaji nga yor sa doom ñu dóor ko ay jaasi wala sa rakk lan ngay réagir te pourtant Ousmane Sonko il a été très lucide nee na je parle en tant que candidat en tant que candidat de Pastef kon waxatul en tant que premier, premier ministre. te en tant que premier ministre mënoon na ko fajal boppam wax ji yépp mënoon na ko cee bañ a fekk yaa ngi may dégg. Uh-huh. mënoon na taal otoom wala dugg ci otoom woote la muy woote joxe instruction ya muy joxe ay instruction ya muy joxe génn ne mi gars yi commencé arrestation yi def la ñuy def. mu ne mi mais ñoom ñoo woote rupture. Uh-huh. kon bu ñu wootee rupture y a une très grande différence entre le premier ministre uh-huh. et le candidat du PASTEF moom mu génnee yére premier ministre am tegee ko fële. wax en tant que candidat du PASTEF. le candidat du PASTEF nag. wala le chef de Pastef yàgg na dal ci kaw Macky Sall. le candidat du Pastef bu dee rupture la ñuy woote mën na interpeller ki mën na interpeller ki nga xamante ne. moo di ministre de l'intérieur. mën na interpeller ki nga xamante ne moo di président de la république. et ça n'a rien à ak l'État ak le président de la république. absolument rien du tout parce que ñoom ñoo ne c'est le candidat du Pastef moom mooy dem campagne yi c'est le premier ministre du Sénégal. kon le candidat du PASTEF. Mhm. bu dee dafa am ci njabootam ñoo xamante ne ñu ngi leen di teg ay mbir yu métti di leen lor il a vraiment le droit de faire un appel. Mhm. et c'est juste ça mais nag li gën a graaw ci wax ji Ousmane bu ko neexoon ne génn leen reyante mhm. wala bu ko neexoon ne nangam mais bu ñu leen tooñee fayeeku leen. loolu diine sax da koo digle. légitime défense légitime défense mais tooñ nag moo war warta am tooñ. bu dee dañuy on dans de dans un jeu boo xamante ne jeu de programme la jeu d'intellectuel. jeu vraiment boo xamante ne loyal la combat bu loyal. wala concurrence bu loyal ci loolu la ñu nekk tooñ moo warut am Ousmane Sonko warut sax di xalaat naan ay bu ñu leen tooñee parce que moom da koy leer na ñi mu jàmmaar lool du ñu ay tooñkat. mais bu la leeree ne ñi nga jàmmaar lool ay tooñkat lañ. te il vont tout le temps te chercher mais qu'est-ce que tu dois faire lu dul prévenir say nit yoo àndal. mais li mu wax tamit c'est normal bu dee ministre de l'intérieur. jëlul ay devant am ñun dinañu ko fajal suñu bopp. mais c'est très clair léegi bu dee ministre de l'intérieur faju ko dañoo bëgg ñoom ñu croiser seen bras ñu rey leen. wala ñoom ñu nekk ci seen i bu ñu yooxoo sonkoo sonkoo ñu ñëw dóor leen i te nag xanaa kuy nelaw sax war na xam ne Pastef moo ëpp doole sàmm sa kàddu fukki junni yoon xanaa koo xamante ne xamul li xew sax war na xamante ne doole yi yemul mais bu dee moom leer na ko ne doole ji peuple bi yépp ci moom la gën a far te pourtant c'est lui qui appelle qui joue les légalistes. moom mooy appelé ki nga xamante ne moo di ministre de l' ne ko jëlal say devant balaa ñuy fajal ñun suñu bopp. kon c' au ministre de l' intérieur maintenant de prendre ses devants de vraiment prévenir ses actions. mais ni ma ko waxoon sànq rek devant des irresponsables euh, tu feras toujours fa à ça. léegi nag beneen mbir bi mooy ay nit ñi nga xamante ne. ñu jël tout leur temps tout leur armageddon. euh, ce qu'ils pour juste manipuler l'opinion uh -huh. pour juste jël ay waxi Ousmane Sonko dëppër ñu ko pour juste mettre en mal usmaan Sonko avec les gens mais il vont pas réussir parce que nit ñi dégg Ousmane sonkoo wax démb xam nañu lan moo tax Ousmane wax dañoo jël benn njabo ay njabootam dóor leen i jaase jël ay njabootam tuutal leen ay njabootam humilier leen. Uh-huh. te pourtant ñoom ñu ëpp doole ci réew mi. Uh-huh. mënoon nañ ko fajal seen bopp. mais il est toujours il a été légaliste jusqu'à la fin. Uh-huh. parce que mënoon na ñëw rek toog def peut-être ni ko Abbas defee woon. ne suba kuy ñëw indi leen ay jaasi indi nangam mais Abbas sax bi mu waxee loolu génn na kii. ni dafa juum génn na dafa juum. mais démb moom la mu wax moom c'est très donc c'est au ministre de l'intérieur. de vraiment. prendre les devants. Mhm. mais ak nu mu munti doon devant des irresponsables alaaji mhm, mhm. on peut jamais euh, tout prévoir. alors maa ngi lay junj léegi euh, réaction ki nga xam nag moo di euh, Waly Diouf Bodian. ci page Facebook am moom aussi nee na.